ñaari enveloppe bu ci cinq cent mille ci ne ñaari enveloppe bi bu ne cinq cent mille ci ne li tax ma def ko noonu cinq cent mille bi pour organisation booba léegi gisuleen pour organisation bi cinq cent mille pour sama sujet ah mu nekk muy un million moom laa leen jox xeeb ko nag xeeb naa ko torop torop torop torop su ma sañoon jox leen dix millions wala trente millions mais aw ko xam koy jaay rajo ak galaasal ndaw man aw loolu loolu su ko defee loolu moo ci nekk su ko defee bi ci des ah ki ñu tuddee bis bi mu ñëw di ñu defal conférence muy Oustaz Alioune Sall Samara moom laa jox deux cent mille yii bu defee moom itam mu def ko penalty bu ko defee daal lii mooy li nga xam ne def naa ko Mbaye Faye ñu ngi laa gërëm ñu ngi lay sant ma laa gis loolu ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Baye Oumar Ndiaye di ko sant Mhm. bu baax a baax. ndax itam fu kamaan mënul nekk nga demal ko fa. waaw dem fépp di lijjanti lépp lépp yaa ngi koy def kon nag dañ lay sant bu baax sant Mansour Ndaw moom itam di di sunu mbokk di sunu dënn. boo defee daal loolu dañ leen doon wax. li ci des nag moo di ku am gan da koy tere liy déglu ba mu jeexal. man bu ma amuloon fu ma jëm fii lay toog fii lay toog ba mu jeex ndax kii du ma ko bàyyi gannaaw bàyyi nag gannaaw am naa conférence ci ca laa jëm te xam naa ne sax boobu est-ce ñaan ñu nga may xaar boobu ba léegi ma ne leen damay jaar Thiès ci Oustaz sàll bu buñ jullee ci lay dem parce que julli nañ ñëw naa tabaarakallahu ah, kontaan nañu bëgg nañu di gërëm waa si internet bi ñoom itam ñu gërëm leen sant leen bu baax ndax itam fi ngeen di yóbbu waxtaan yi ñun mënuñ ko faa yóbbu kenn ci ñun Oustaz mënu ko man mënu ko yéen a koy yóbbu fu ne kon nag jaar na ñu gërëm leen sant leen